arrête de dire que Ousmane Sonko wey dafa né wey waxul fa ay eh, ben affaire bu clair ci homosexuel ku bugul dég moy taxaw dina waxu fa affaire bu leer mais bu féké que nga su français da nga dég français bu ba j'invite à les gens d'aller visionner les images d'hier té ñu déglu religieusement amna ñu ñoo dañu déglu ak déglu yakamti mais j'invite à tout le monde d'aller ñoo xamanté ñom ñoy taxaw tay di ngañ Ousmane Sonko nañu dem ci YouTube bi tapewaat encore dégluwaat encore le discours intégralement le discours de Ousmane Sonko religieusement comprendre que il a il a il a il a répondu avec un français soutenu à comme à à Mélenchon pour dit que Ousmane Sonko bu muy wax français il parlait pas pour que les Sénégalais comprennent il parlait pour que les Sénégalais et comment les Français et le reste du monde nous mhm. comprennent ce qu'il voulait dire motam mu jël un français français bu dama gis sax ci euh, ñu doon commenter mm-hmm. quelqu'un qui résidait en France ci les commentaires là il a dit mm-hmm. Ousmane Sonko il a élevé le débat c'est pas pour les Sénégalais mais pour les Français et le reste du monde parce que Mélenchon ay nit ñoko yabal. Mm-hmm. dama lay jox légui fofu à les maintenant ci ci information bo pour ngeen xam ko. il fait partie dans un lobby des homosexuels Mélenchon il fait partie dans un lobby un lobby des homosexuels ñoom ñoo yabal au Sénégal ami parce que le Sénégal c'est une zone stratégique dañoo jéem a jéem ba léegi mënuñu fexe ba mën dañoo par tous les portes pour ñu mën a Sénégal daganal ngor jigéen mais ba léegi tubaab yi wala ce lobby ce lobby homosexuel là. ba léegi ñu ngi daw si ginnaaw jéem ami bu fekkee sénégalais ñu ngi fàttali ko le cette lobby d'homosexuel d'homosexualité andi nañu fii Sénégal ku ne mm-hmm. Rihanna ñëw na fii bay na waaram mais réussirul keneen euh, nu mu tudd euh, euh, ñoom ñëpp ah ñeneen ñi ya fàtte naa leen ñoom solo bi la andi nañu fii ku ne Sénégal fii fii Sénégal fii yabal nañu fii ku ne borom tuur mu am tuur am daraja ñoom ñëpp jéem nañu jéem ba sonn mënuñu fexé ba Sénégal l'état du Sénégal daganal nguru mbir goor mm-hmm. maintenant c'est au tour de Mélenchon de venir mm-hmm. dama lay wax ce qui s'est passé amna ñoo xam dañ doon suivre mais ils n'ont rien compris de la de la stratégie politique de ce lobby de de de de de d'homosexualité lu ñuy def pour andi Mélenchon jaaraale ko par le biais mm-hmm. de Pastef bo xamante ne dañoo am lien de fraternité ñu jàpp ni que peut-être comme Mélenchon dafa am relation avec Ousmane Sonko dans le cadre de de de la politique mën nañu jaaraale ci loolu ba fexe Mélenchon jouer ce rôle pour mu ñëw dagan ñu fexe ba mën a daganal mbirum góor jigéen au Sénégal mais ils ont échoué à travers le discours de Ousmane Sonko qu'il a fait hier. Mm-hmm. daf leen xamal ni que il n'a pas cité ce lobby parce que même boo buy wax moo tax ma la Ousmane Sonko dafa wax débat bu kawe foo nga dégg tubaab pour nga comprendre waa jii nii lu muy wax ça dit que ami lu ñuy ne dóor nit sans sans loxo sa loxo di di ko laal Ousmane Sonko loolu la def dafa dóor ce lebi laa bo xamantene mom mo yabal Jean-Luc Mélenchon au Sénégal lebi gor jigéen bobu Ousmane Sonko daf leen d'or ci ay cadeau sans pourtant auto loxoom di leen lal sans pourtant au sang aussi mu tudd sen tour parce que waxul cette lebi de gor jigéen il a dit fay yam ci ay propos Mélenchon ni que homosexualité pratique le bon xamante donc dame amna Sénégal mais nous on va pas l'accepter on va pas l'accepter bon par hôtel débat bi pour il parlait pas aux Sénégalais il parlait à la France et ce lobby là parce que ay au ñoo ko Mota Sonko il a parlé un français dur un français de la France est soutenu Mota, nous ñu les man ami <laughs> ñu man ñoo xamanteni ne seen dégg-déggin si leerul ci français ñoom duñu ñu dégg Ousmane Sonko lu mu wax. Mhm. moo tax nga gis ay journaux xëy tey di titrer parce que en réalité ces journalistes là. de la presse de la presse écrite ñu bëri ñu titrer ni ils n'ont pas compris ce français bu mu Ousmane Sonko doon wax démb. xam nga nga jàpp ni sa bopp ni dégg nga tubaab ami mhm. parce que sénégalais xam nañ ko dafa dëgër fit boo xamante ne pour moi mo dàkk ci aduna bi wax français du rouler ay air même bo defee faute touti ci article ñu corriger wa waa diw ñu reetaan sax ñu ne diw def na faute ñom ñoo jappé sen bop ni deug nañ tubaab alors que dégguñu dara dégguñu tubaab la preuve ils n'ont pas compris le français que Ousmane Sonko parlait hier ils n'ont pas compris pourtant les Sénégalais qui sont en France wala ñu nekk bitim rew déggu nañu Ousmane Sonko xamnañu bu baax ce qu'il a dit mais voilà ñu melni man ñu nek Sénégal vie ñu jappé sen bop ni que ay tubaab dégg nañu en réalité ñu dara ñom ñoo xëy tey di titre ci les journaux là Ousmane Sonko pote ils n'ont rien compris du discours de Ousmane Sonko d'hier mm-hmm. ami je peux parier au Sénégal fay fi mm-hmm. je peux parier ñu sétane le discours de Ousmane Sonko hier mm-hmm. seulement bo jëlee 100% de la population sénégalaise seuls 15% ont compris Ousmane Sonko ce qu'il a dit dans ce français-là 15 Damane, ami 100 de la population sénégalaise je peux parier le français que Ousmane Sonko a parlé hier dans cette salle de de 15 de la population sénégalaise a compris ce que a dit Ousmane Sonko monde contrairement à ce doon taxaw ni di faire semblant de faire semblant de faire semblant ni ils ont compris alors qu'ils n'ont rien compris que Ousmane Sonko le moi. il a utilisé des argons il a utilisé des des comment des des citations comme Jean-Luc Mélenchon l'a donné une citation Ousmane Sonko a répondu par une citation mané ne mo bu baax je vais décortiquer ce qu'a dit Ousmane Sonko. parce que man dama japp ni que ci les sénégalais yu dégg Ousmane Sonko ci français bu kawé boobu man je fais partie dégg na bu baax ci français bu kawé bobu dégg na bu baax Ousmane Sonko lu mu Jean-Luc Mélenchon a terminé par une citation. qu'il a empruntée Ousmane Sonko ba mu ñëwee il a répondu par cette citation. pour tontu ko. xam xamal Toba bi ni que. Certes, la France, la langue française, c'est pour vous, comme Senghor l'a dit, mais vous ne maîtrisez pas mieux cette langue-là que nous. Mélenchon a utilisé la rhétorique. Mélenchon a utilisé une rhétorique, soutenue d'ailleurs. Pour nous que Mélenchon rhétorique l'a utilisé, il faut qu'on ait beaucoup de je m'excuse. Il faut qu'on ait beaucoup de gens qui pour xam que Mélenchon a utilisé une rhétorique comme Ousmane Sonko dafa dégg Toubab, xam na ni que waa rhétorique la utilisé pour me convaincre même si sait qu'il ne peut pas convaincre il n'a pas raison Moi, a utilisé utiliser cette forme de rhétorique Ousmane Sonko quand mu est daf ko tu dit ça et ça et ça d'ailleurs je l'ai noté Je ne sais pas, si may wax dit nga ça et ça et ça d'ailleurs que je l'ai noté je vais répondre ça et ça par ça et ça. C'est comme ça qu'on répond les blancs. Mhm. Te Ousmane Sonko ba muy répondre euh, euh, Jean-Luc Mélenchon deful comme Macky Sall de di sëgg dafay tourner xool ko ni jàkk <laughs> ba ba Mélenchon ça les léeg boo ko ci fauteuil bi day tëb def ni Ousmane Sonko day tourner nii ba mu cadrage bi yemoo ak mom mu répondre ko wak. bu paré bu bëggee wax sénégalais mu tourner ni ci peuple bi wax c'est comme ça c'est comme ça qu'on répond aux blancs amis c'est comme ça tubaab boo beaucoup répondre lolo. dina xam que qui qui ma à ni qui il parle en toute sincérité te man munuma si moom dara te Ousmane Sonko loolu la suis Mélenchon pour mu xam que munoo ci man dara donte on est on est amis par des idées peut-être dafa am lu ñu politiquement mais bu que pour changer ma stratégie ou bien pour changer sama gis-gis ci walum woowu mënoo ci dara. Mhm. loolu la gëm xam euh, euh, euh, mhm. tourner à un moment donné ko bu répondre ko ba la population. Mhm. Euh, Alpha wax nga ko euh, xam nga li nga xam ni mooy mbirum euh, homosexualité peut-être Ousmane Sonko dégguñu ko ci baax en tout cas gis nañ que ni dañ ko cee critiqué bu baax baax mais am na loo xam ne benn fait boo xam ni gars yi peut-être apprécié nañu ko muy li nga xam ni mooy tenue bi mu sol di une tenue africaine purement africain sax laay wax mais aussi yemu ca dafa rek daal di nekk foofu di défendre wala di dina jéem a daal di taxawu pays yi nga xam ni wax nga ko sànq ñu ngi leen tuddee ay putschistes maanaam ñoo xam ne dañoo foqati nguur euh, pour nekk fa ñu si mel ni waa Mali Burkina euh, Niger ak euh, ñi nga xam ni ñoo di Euh, waa Guinée mu mel ni nag moom Ousmane Sonko li mu bëgg mooy euh, surtout lu euh, lu soxal li nga xam ni moo di monnaie locale bi li mu bëgg mooy pays yooyu yëpp ñu daal di génn ci franc CFA bi ndax jàpp na ni loolu bokk na ci li nga xam ni moom moo sonal africain yi mais rawatina réew yooyu te moom Ousmane Sonko pare na nee na pour rek ñu daal di taxaw pour africain yi ci seen bopp daal di jëlal seen bopp seen souveraineté économique mu mel ni loolu moom bokk na ci li nga xam ni apprécié nañ ko démb ci li nga xam ni nekkoon discours bi Alpha. xam Ami évoqué nga benn point bu am solo ce qu'on appelle le langage mouillé c'est ce que Ousmane Sonko a fait à à travers ses tenues traditionnelles mm-hmm. c'est-à-dire que.